village de tout petit bi mu ngi ca cité gendarmerie bu jaxaay case bi nag mu ngi ci état de vétusté mu nekk mënaas ci gune yi ca beneen côté précisément ca jaxaay en fii nag case de tout petit bi jafe-jafe bi lenn la mooy ñàkkum kaarange ak inondation suñu miir dañ ko daaneel biñ ko daaneele ba tey ku ne jooy nañ la ko pour nga ñëw gis nga ni dara baaxu fi am nay ñax am na ay jën jën sax mi ngi ci biir. coordonnatrice ak petite enfance case de tout petit bu bees bi ne umpalewul yooyu lay jafe-jafe fii ci banlieue ak niveau national dana def kem ngir jël ay matukaay ngir ñu réhabiliter ak renforcer yooyu la case de tout petit ngir mu am fonctionnement bu bees. man yàgguma bu ma installé donc comme coordonnatrice régionale fii ci dakaar waaye teewul. situation boobu yëpp mu ngi sama kaw taabal xam naa situation boobu te yaakaar naa fi lekk euh, bu ma jàkkaarloo kilifa gi muy directrice générale dinañ ci jublu bu neexee yàlla fexe ba case yooyu yëpp mën a fonctionner parce que comme nuñ ko waxee fi mu toll nii jàngum ndaw bi lu am solo la. lu jëm ci wàllu préscolarisation mu jàpp ne taux bi dafa faible lool ba mu jàpp ne dañ ci war a xar seen tànk tubay fii ak deux mille trente ñu fixé wu comme objectif soixante cinq pour cent. déscolarisation bi mu ci dix neuf pour cent te nee nañu fii ak deux mille trente bëgg nañ mu yegg ci soixante pour cent donc euh, lu ñu mën a am case yu mel noonu di ko bàyyi kon dinañu def suñu kéem kàttan fexe ba case yooyu mën a fonctionner. ca yeneen localité case des tout-petits dañ ko transformé def ci leneen bu ñu sukkandikoo ci source concordante ca géej waa case des tout-petits leneen lañ ci def lu dul xale yi di fa jànge